Euh, coalition bi dafa am loo xam ne euh, daf ko exiger euh, ñi nga xam ne ñooy ces élus yi ñu war a fal ci ay postes yoo xam ne dañ leen koy nommer li nga ma expliqué léegi ci sa relation ak sa say administré maanaam mairie bi nga jiite ñu mel noonu tey ñu imposer ko ñenn ñi dina dina metti exemple bi may joxe mooy le cas de Birame Souleye Diop qui maire de Thiès Nord voilà euh, xam nañ attachement am ci comme yow sa bos ak sa localité ñu imposer ko tey jii mu war a def un choix loolu noonu c'est c'est assez difficile. oui tout à fait Moudou et ci ci loolu. Mm-hmm. c'est-à-dire que mu cumul bu dee dañ la nommé kooku dañ la nommé. Mm-hmm. mais y a pas plus grand prestige y a pas plus grand honneur. Mm-hmm. pour quelqu'un qui fait de la politique que ay mbokkam ay waa commune am ñu jël la def la maire nit bu la ay nit tànnee ba def la maire ñooñu desee la tuñ la dara parce que tey Sénégal le maire est élu au suffrage universel direct y a pas plus grand honneur y a pas plus grand privilège pour quelqu'un d'être élu maire le maire a la même légitimité mhm. que le président de la que République mhm. et Birame mon ami frère Birame nga xamante ni xam naa ko xam naa engagement am xam naa cofeelam pour Thiès mo et je le lui ai pas plus tard que samedi on a pris le petit déjeuner à la maison mais maa ko koy rappelé man ko man euh, c'est vrai que bu décision ñëwee à l'unanimité ñëpp waxandoo ko bu ñu la minoriser da nga ciy tënku mhm. mais man du tee ma d'accord ma ci parce que xam nga bu ñu nit ñi mën nañ ko interpréter. neneen non trahison la parce que ce parce que ki ñuy fal ëllëg xamuñu exactement. xam nga moom du ko defee pour trahison parce que bëgg bi mu bëgg Thiès. Mhm. mais pour respecter un engagement pris ci biir parti am il est obligé de faire avec de faire avec mhm. mais man de très sincèrement c'est-à-dire que man très sincèrement laa koy waxee nag mhm. parce que euh, man bëgguma di waxat leneen ñu ni yaa waxoon lii man amul lenn loo xamante ni jàpp naa ni mën na ma gënal la fonction de maire bi nga xamante nii ay Thiessois. ñoom ñoo xeex wàcc ci naaj bi def campagne ba fal ma maire. saa su ma xëyee ci mbiru maire bi laay nekk saa su ma xëyee maa ngi réfléchir ci nu ma fexee ba lu amul woon sama biir commune mu am fa lu ñu fa waroon a yokk. nu may defu bu population yi jafe-jafe yi ñu am ñu régler ko. est-ce que waru woon nekk lu ñu encadré euh, xalaat ci dans les pour les années à venir élection yi di ñëw par exemple wala euh, mu bañ a engagé les les les parce que un parti une euh, proposition wala un choix ñu yaatal ko noonu le premier ministre génn wax ko c'est c'est abusé en fait. tout à fait xam nga su fekkoon nañ ko encadré. comme cela se fait à l'Assemblée nationale. parce que tey jii l'ancien premier ministre Amadou Ba candidat malheureux à l'élection présidentielle il mm-hmm. ñu fal ko premier ministre keneen jël posam. Mm-hmm. tey jii wàcc na nekkatul ministre. Mhm. su ko neexee mu dellu assemblée nationale. il est en droit de retourner à l'assemblée jëlaat postam. c'est vrai mais pour les maires. après c'est ce n'est pas possible un maire une fois que nga démissionné parce que tu as un poste nominatif dañuy organiser élection remplacer la. Mhm. boo defee ñetti weer ñu dàq la ci fañ la nommé. yow mënatuloo ñëwaat nekkaat maire donc il faut gars yi c'est vrai que ay yokk salaire u maire yooyu yëpp baax na mais le statut de maire dañ ko war a xoolaat mhm. cest à que maire ñu jox ko cër bi nga xamante ni moom la war a am Sénégal joxuñu cër maire yi c'est-à-dire que euh, maire mooy koo xamante ni amul nijaay amul bàjjen contrairement nag boo demee ci dëkku tubaab yi nga gis mhm. boo ne waxuma la maire mais bu ñëwee conseil municipal nga rek mhm. da ngay gis cër bi nga xamante ni moom lañ la jox mais comment comment comment euh, vous vous vous vous vous expliquer naka lañ leen mën a dolli lee doole yokkal leen bon waxuma je parle pas de financement mais cër bi ngay wax nii naka la gën a mën a mën a yokkee non mën nañ yokk dans plusieurs domaines par exemple déjà par rapport ak euh, man tribunal laa ne laa nekk mhm. damay jékki-jékki damay tooñ moom sama collègue yenn maire yi di ko wax damay xaw a romb buntu cave rek des fois nga xëy gis ñaari gendarme ñu takk benn maire ay monote mhm. jiital ko yóbbu ci cave bi sur la base de simple ay soupçon mën nañu wax ni maire bi. maanaam immunité bi député bi am. maire bi war na ko am même bu amul immunité. Mm-hmm. le maire devrait pouvoir bénéficier d'un privilège de juridiction. Mm-hmm. parce que mooy jëwriñu dëkk ba. ça c'est vrai jëwriñu dëkk bi war nañ ko mën a jox tuuti cër. un maire dangay nekk dans la circulation ou un policier t'arrête euh, nga présenté wu ne sax ni ko maay maire bi mais moom yoonam nekku ci wala gendarme wala dara. Mm-hmm. nit ñëpp di la xool ñu gis. ni lay participer que le maire. amu fa pouvoir boobu ba policier mën ko arrêté bu ko neexee sax mu sax mu nangu say kayit dem ak yooyu doo xam loolu xaw na nekk loo xamante ni c'est mm-hmm. un peu humiliant donc le statut de maire war nañ ko xoolaat il suffit que ñu un maire ñu jiiñ ko benn affaire bu ndaw gars yi patam patamee ko yóbbu donc le statut de maire mais bien sûr voilà Khalifa sax xam nga xalifa ak darajaam mhm. euh, son cas était médiatisé nit ñi ñu ngi ci doon bàyyi xel am na mhm. certaines violations de ses droits euh, constitutionnels et fondamentaux doonul woon mën a nekk mhm. mais y a d'autres maires qui sont dans des communes ruraux ñoo xamante ni nii seen jàng demewul noonu du dañuy jóg pour euh, wàcc yoon mais dañuy def ay erreur yu ndaw wala ñu indi leen ci en erreur yoo xamante ni hmm. xëy na xamuñu ko wala sax lu ñu def du erreur nit porté ay accusation rek mais ñu patam patam mais surtout que aussi yu doy wax sànq kenn gënul jege askan wi euh, que le maire au jour le jour euh, pour aller vite yenn saa yi yëf yi jarul euh, jaar ci yenn procédures yi c'est ce qui est arrivé à Khalifa Sall te yooyu après bu ñu defee benn kii rek mën mën na la topp indi la loo xam ne amaana tu n'es même pas fautif en fait. mais bi ñuy ñëw nii léegi rek maa ngi koy wax suma mon cabinet là ñi ma àndal ils peuvent le témoigner. Mm-hmm. Euh, le hier euh, et avant-hier samedi et dimanche le onze ak le 12 mai. y avait énormément de programme à Thiès suñu mbokk yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu diine. Mhm. ñu ci bëri dañu organiser ay conférence ay jàng. te ñoom aussi ci mbir yi lañ bokk. Mhm. c'est-à-dire que nitu daara yi ci mbir yi lañ bokk. Mhm. te yi ñuy organiser annuellement lañ koy organiser or dans nos budgets yooyu gars yi duñ ko jël en compte. te bu amee yow en tant que maire. il faut nga def nit xewle jël temps bind la ni maire kat dama am activité bu may def te bëgg naa nga ñëw ci. yooyu tu te dois yow en tant que maire nga dem fekk si leen fa ñu nekk mais mënuloo dem ci ay xew-xew yu mel noonu xew-xewu diine ay jàng wala gàmmu nga ñëw ki nga xam ne dafa wut xaalis wut ay bâche togg ay añ lu ne mu def ko nga ñëw di ko xool loxoy neen tu peux pas le faire mm-hmm. c'est-à-dire que a des réalités qui sont qui sont là tu es obligé pour une journée nga am dix manifestation religieuses yoo xam ni da nga fa war a dem mm-hmm. te foo ci dem war nga fa joxe dara mais far nga koy jëlee su fekkee amuloo yow nekkuloo kuy liggéey am ay sources de revenus supplémentaires feneen mais ça va être extraordinaire mm-hmm. sànq bi ñuy ñëw moom laay tooñ gars yi man leen li ma li ñu yoroon de man li ma yoroon ci week-end bi <laughs> séddale naa ko ci week-end bi on doit mm-hmm. aller à Dakar moi j'ai pas de carburant li ñuy ñëw de maa koy mm-hmm. tooñ sama gars yi di ko wax donc li ngay wax noonu aussi c'est un fait les procédures on doit les alléger Euh, de telle sorte que maire bi mun a am yenn possibilités yi par mm-hmm. rapport ak yeneen yenn intervention d'urgence yi uh-huh. nit dafay feebar ñëw ni la monsieur maire dama feebar dama war a def benn mm-hmm. mu nekk opération boo xam ni cherul trop su fekkee da nga fa war a nekk nag def ay engagement mu dem perception municipale déposer yenn mais balaa nga koy def euh, musiba am ah,